man damay jël ay oto leen dugal ci biir leen passé comme tey boo yoroon sa oto rek ñëw am fooy dem nga bàyyi ko fi su ma passé pare gaaral la ko boo pare nga ñëw jël si yóbbu. damay régler paralysement régler wàllum organ wàllum làmp yu tàkkul waaw yooyu yëpp daal dama ko fi liggéey. moom paralysement rek lay defar moom. su ma liggéey rek laa yem moom. non non paralysement rek laa fi defar. waaw fii moom ñu ngi fi nekk comme gars yi defar paralysement voilà comme oto bu ñëw lamp yi tàkkut affaire yooyu nga essencé ko pour mu pour mu jàll des fois nga am oto dawal ko dugal ko ci biir génnee ko ñu fay la. dañuy dàqe làmp yi frein à main yi vitre teinte oto bu am ay org ay pneu yu baaxul yooyu yëpp dañu fi dàqe koy xool nag door koo dugal. lu ci baaxul mën a lii ak lii nga wax ñu changé ko après ñu door moom mënut a ñàkk moom. mais li ñuy defar mu jàll moom moo ëpp moom. waaw parfois nag da ko fi gis nag parfois mais très rarement très rarement ko mais dañ ko dàq quoi loolu par chaque fois comme ni ma la ko waxee léegi rek boo ko gisee bu arrivé rek peut-être bi am na panne am na problème mais oto fekkee mu ngi organe ngi normal lépp a ngi normal normalement kon boo ko defaree dañ a en départ rek di nga am ay vingt mille jëm kaw wala ay quinze mille rek oto yi moom waxaale ba jubóo la rek. lu mu naqar naqaroom da nga wàccaale dix mille moom. lu mu naqar naqare waaw waaw. maanaam bu rendez yu bëree rek comme nii nii moom mën nga xëy dal ci ay ay vingt mille vingt cinq mille trente mille yemul fa. moom souvent da ngay ñëw yow mënoo dugg wala amoo jot pour nekk fi wala nga nga woo ma ne dama bëgg nga paaseel ma mënumaa ñëw ma ñëw jël sa oto ñëw fay ñu paaseel la ma dellu la sa oto.